dañu ñu rey ci àll bi ñu naan Boffa Bayotte léegi il fale ko ñu am résultat yónnee nañu gendarmerie ñëw nañu jàpp nañu ñoo xam xamuñu sax lu ne leen ràpp ci kaso bi ba ci kaso bi ba tey it enquête bi jeexul bàyyiwuñ la ñu sàkku woon ñu bàyyi leen ñu ñibbi buñ leen soxlaa ñu woon ndax loolu la yoon wax ne que balaa ñuy jàpp nit loolu dafa war a doon li nga xam ne bu warul mën a ñàkk lañ war a jàpp wante nit ki bu reyee nit sax te jàpp ko war na mën a ñàkk mun nañ ko bàyyi fu ñu ko soxlaa ñu woo ñaareel bi moom moo di it dañoo gis ne que enquête amul ndax gendarmerie li mu def doyuñu tey na xel ñi nga xam ne que war nañu mën a indi ay firnde yi wane que ne ñoom nekk ñu woon ci àll bi wala nekk ñu woon Ziguinchor dégg nga wala peut sax xëy na nekk ñu woon Sénégal loolu lépp juge bi jéemul xool ndax loolu mën na nekk wala mënul nekk dégg nga li ñu wax nekk it loolu euh, moom moo di seen i preuve dégg nga ay téléphone ak yooyu loolu lépp dafa des parce que ñu nekk nit ki téléphone am euh, wane na ne que mu ngi Ziguinchor Ziguinchor dafa yaatu tey jii bu fekkee ne que boo fa bayot amul antenne télévision et que antenne bi am ci Ziguinchor ci ci Casamance ci zone bi yëpp Ziguinchor la nekk bu leen neexee ñu nekk localiser nañ ko boo fa bayot fekk du dëgg fekk ci biir Ziguinchor la nekk kon yooyu yëpp ay élément la yoo xam ne mbir yoo xam ne que suñ ko saytoo ci xam-xam jéem ko jaarale yoon war nañ mën a xam ku ci ne fan nga nekkoon ak ku ci ne waxtu boobu lan nga war a def loolu nag ba ñu ne bi nañ ko saytu dégg nga ñu leeral ndax ñii war nañu mën a bokk ci lañ leen jiiñ walla loolu juge bi dafa ne moo lànk ba ñu nekk nañu déglu général bi parce que dañu am lu ñu koy laaj te war nañu war a mën a leeral dara moom moo ci nga xam ne tey jii moom moo jiite armée Sénégal dafa ne moo lànk loolu du ko def ba ñu nekkoon ne entendre directeur rajo Sénégal du nekk Ziguinchor parce que moom it am na yoo xam ne war na ko ci mën a leeral dafa ne moo ñàkk kon juge d'instruction bi lan lay jëriñ lépp lu luñ ko ne ne saytu luy war a wane que ne ñii mu jàpp waru leen jàpp dégg nga et seen yoon nekku ci buñ ko waxee mu lànk kon boog loolu li mu lànk loolu ak li mu leen bàyyi bañ a bàyyi looloo tax tey ji ñu ñëw ci kili ki nga xam ne moom moo ko féete kaw muy chambre d'accusation pour que ñoom ñu saytu loolu tontu ñu ci tontu yu leer léegi nag chambre d'accusation bi ba ñu ne du ñu boolee wax jëpp ñu wax ko benn wax nee naa kon bokk bu ñu waxul tey ci liberté provisoire bi foog ñu bàyyi leen par force konk loolu nag mën na ñàkk que ñu mën ñu tontu ndax dañ leen di bàyyi wala duñ leen bàyyi ak luñ ci mënti lay it day nga ñoom seen droit la kooku nañu wax wax jooju ndax délai la mais li jëm ci expertise yi ak seede yi nga xam dañoo bëgg ñu ñëw ñu entendre leen wala ñu bàyyi leen ñu jongante pour wane que ne li enquête bi def maanaam du dëgg ay naxe mbaay la et que waruñu dara dégg nga alors dañoo tuumaal ay nit te tuuma yooyu ñun mun nañ ko dindi dégg nga loolu ñu dàqal ko ay fan ndax dinañ war a gën a mën a am lii tax que loolu dina fësal dégg nga euh, njublang bi nekk ci enquête gendarmerie euh, xam nga buur bu la tegee doole mënoo ci dara wante li ñu war a gis moom moo di que tey jii ñu ngi tas ay sëy ñu ngi yàq ay jàngu nit xëy na sax am na xale yoo xam ne tey jii ñu ngi jaay seen bopp parce que amul kenn ku war a yor seen njaboot moo tax Sénégal ni mbir mi di demee dañ ko war a xool deuxièmement aussi ma ciy profité ne lii nga xam ne que dañu nekk euh, maanaam cour d'assises wala chambre criminelle lépp li nga xam ne dafa jëm ci li ñu war a mën a tëj nit ki ngiru dundam day nga wala tëj ko ay at yu weesu fukki at day nga waruñu ñu nekk amul délai et nit ki mun na toog kaso ba ngiru dundam wala toog kaso lu mu bon bon ñaar fukki at loolu teguñu ko fenn nit ki bu fekkee dafa nekk kaso dañu war a jox juge d'instruction bi diir ñu ko diir bi da ngay def sa enquête soo defee sa enquête. nga bàyyi ko wala nga ne nañ ko àtte ci comme ni ñuy def euh, correctionnel nga xam ne boo defee juróom benn weer juge bi da bàyyi wala mu yónni la ñu ñu yóbbu lañu ñu àtte ñu ñu àtte mais fii ñoom li leen toppee mun nañ leen jàpp seen liiru dund ñoom ñëpp ñu dee ci kaso bi te fekk dégg nga yoon du leen war a mën a génne avocat bi saa yooyu ñaan si bu leen neexee ñu ne waaw buñ leen bàyyee mbir mi léegi Sénégal toj ndax mbir mi dafa doy waar maanaam dañu rey ay nit mais bu fekkee ne que ñoom leer na leen ne ñoom ñoo rey ay nit dañ leen bu ñu àtte leen mais su leen leerul dañ leen bàyyi ñu dem seen njaboot bu ñu leen soxlaa ñu woo leen ñu enquête yi léegi nag euh, maanaam enquête yooyu ñu laaj dégg nga droit la mënuñu ñu tuumaal ñu nekk ñun dinañ indi firnde ne li ngeen ñu tuumaal du dëgg et firnde yi lii ak lii ak lii la juge bi ne loolu du ma xool boobu bërëb man xool bërëb bi may xool moom moo di que gendarme yi wax nañu la ñu wax est-ce falaa yëpp dégg nga su fekkee ne nañ nañ nañ leen bàyyi mu ne déedéet yëf yi dafa garaaw parce que dafa am lu garaawul man bu ñu sàccee sama ganaar wala sama nenu ganaar fekk ganaar boobu rek laa am ak nen boobu rek laa am mais ak ñu rey ma benn la parce que mun naa dee xiif kon boog nañu bàyyi yenn kàddu yi nga xam ne dañ koy jël dégg nga naan mbir mi dafa garaaw ak garaawul pour bàyyi nit ñi ci kaso yoon boo jàppee nit da nga koy gaaw a atte boo ko jàppee dégg nga waroo ko war mën a tëj te fekk amoo dara loo xam ne que war na mën a tax nga mën koo àtte tëj nit ba pare ne da ngay wuti ay preuve ak ay firnde wéeruñu ko fenn ba pare boo tëjee nit yi ne da ngay wër ay ay ay firnde ki ay preuve ba pare amoo benn diir boo xam ne yoon teg na la pour nga def ko bu la neexee nga tëj ko diir bu la neex yooyu dafa nekk loo xam ne dañ ko war a changé ci sunu sunu sunu loi bi day nga te loolu lu war a gën a gaaw la war a mën a nekk léegi nag ñu ngi xaar ba xam Euh, ndax kilifa maanaam ñi féete kaw juge bi dinañ bàyyi ñii walla ndax duñ leen bàyyi su fekkee ba léegi nag pour li jëm ci enquête yi ñu wax nekk que nañ ñu bàyyi ñu indi firnde ne que lañ ñu jiiñ mënul nekk parce que nekkuñu fi woon ñu ngi woon Paris walla ñu ngi woon Casablanca walla ñu ngi woon dakaar te ñu mën a indi firnde yi loolu it ñu bàyyi ñu indi firnde yi dugal ko ci biir dossier loolu nag xam naa fii ak euh, weer ñu damay dellu si pour que ñu war a mën a wax ci wax jooju kooku dañu dañu may nañ ma te ñu dàq ko ba fii ak weer ñu yokkaat élément yi indi yu yokk firnde que tey jii ñi nekk kaso ba waruñu fa nekk seen place ci seen wetu njaboot la war a nekk